dialogue politique bi ñu stagné ci amnistie bi opposition bi di laajal Karim Wade ak Khalifa euh, waa pouvoir bañ yow la. dama xam nga li ma gën a naqari c'est-à-dire sax dañoo war a nekk sax ci ñaan ay amnistie c'est-à-dire Sénégal moo nekk réew moo xam ne euh, dafa mel ni nguur dañoo taxaw rek ci def ñun ñëpp soppi ñu ay commandeur c'est-à-dire bu bees loo xam suñu turaa la de wala loo xam war a woon a am ba pare rek ñu obligé ñu ba ñu dem léegi nekk di nekk nekk nekk di yelwaan pour dëgg mën a am ay Karim Wade ak i Khalifa Sall dañ leen warta woon a jàpp ci li ñu leen jàppee Karim Wade ñu ko jàppoon ci enrichissement illicite Sénégal laax bu ci nguur gi fi nekk bu ñu doon toppoon ñoom ñëpp ñu kaso bi tey enrichissement illicite la preuve tegaat nañ ko ci suuf apparemment parce que gis nañu mënul dem moo tax yi ma wax sànq benn émission yi occasion yi sax nit ñu tas CREI yi parce que xaaj bañ fay def xaj na feneen ñu ngi fay dépenser xaalis bu baree baree baree bare bëri te kii kii gisul liggéeyam li leen taxoon jóg am nañ ko jàpp Karim Wade moo leen ñoroon jàpp nañ ko génne nañ ko réew mi ñu la nañ ko tëj nañ ko tey ji daf warta woon a am nii dañoo war woon a jàpp ba tey ñuy laaj ab amnistie jala politique bi nag dana tëgg a témbe parce intention yi dañoo bokkul ndax ndi su nga dee ànd ko nekk di jëm nax sa morom ànd ba du yàgg su waxtaan jibee rek ku ci nekk xam sama la ko tax a jóg dafa euh, togaay ba dafay dafay daal di yàqu moo tax may ñaan acteurs politiques yi nañ ñëw sur le terrain nous avons choisi la démocratie comme modèle de fonctionnement dans notre pays démocratie soo ko déggee dafa am majorité buy gouverner am minorité buy opposé am réew munta am pensée unique bañ bàyyi naxaate bi nañu bàyyi majorité bi mu gouverner oppose minorité bi dem opposé wu yi loolu nag soo amee nag ay moment de consensus fort mais ñëpp ànd ñu def li ñuy def parce que damay wax chaque fois ni liggéey réew nekkul rek ni damay taxaw di yooxu rek quelque fois mu am lu baax loo xam ne dafa defaloo ko président applique defaloo ko député defaloo ko maire mais dang nga koy def ngir si askan loolu bu la ci kenn jiitu en résumé daal dialogue bi amul sens na pouvoir majorité bi dem gouverner yi opposition bi nga xam mooy minorité minorité bi dem opposé ci jàmm ak sam l'essentiel c'est que tout se passe dans les règles de l'art nañu respecter la liberté des uns et des autres respecter également le pouvoir des uns et des autres